mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax askan wi nga xam ne ñu ngi teewlu jamono TV ci waxtu wi lay tey Eh, dinañ def taxaw seetlu jëmale ko ci kenn koo xam ne doon na doomu juddu réewu Gàmbi yëkkati na falaagu Gàmbi fu nekk eh, kooku muy uyo ci Papa Bakary Gassama pappa Bakary Gassama doon na ab referee boo xam ne ràññee nañ ko lool fii ci tundub Gàmbi naka noonu fii ci tundub Afrique sawjant ak ci àdduna wi ngal eh, képp kan mooy. Euh, Papa Bakary Gassama Moulé moom lañ leen bëgg a xamal moom nag mu ngi gën a si àdduna ci atum 1979 euh, ci ab dëkk buy uyoo ci Mémé Mémé ab dëkk la bu féetoo ci tund bët gànnaari réew mi ci ab gox euh, buy uyoo ci tund bu Jokadu Mémé su réew dara ak dëkk bi la bu ñuy uyoo ci Kuntaya Papa Gassama papam mu ngi uyoo ci Idi Gassama yaayam mu ngi uyoo ci Aïda Badiane Papa Gassama depuis ba mu gënee nekk tout tànk ci la sóobu bëgg lool fànn tàggat yaram naka noonu bëgg lool eh, la moy def mooy refet bi nga xam ne moom lañ ko ràññalee ci jamono bi ci àdduna wéngal képp depuis nag ba tàmbalee eh, ay yoonam nag amoon na ay jafe-jafe ndaxte nag jamono bi nga xam ne ba mu tàmbalee mbiram refri eh, am ñu daan taxaw daan ko sofantal ne liggéey bu mu nekk daal mëni ne dañ ko daan ñàkkal fayda waaye gëm-gëm bi nga xam ne moom la amoon ne daal refri àdduna wéngal képp dinañ ko ci dégg yooyu la gëm-gëm tey ji nag moo ko yóbbu fu mu toll nii tey moom Papa Bakary Gassama bu passé dëkk bi nga xam ne fa cosaanoo mooy Mémé taarix dal di nañu nettalil doon na koo xam ne wàcce na boppam lool moom Papa Gassama képp koo xam ne gis na la dina la jox cër bi nga xam ne moom nga yelloo buñ sukkandikoo ci li nga xam ne gis leen ko ci wàllum taarix ci fàttali moom Papa Gassama laata nag muy sóobu ci wàllum mbiram refri ci fii ci Afrique sowu jant ak ci àdduna wi nga képp moom nag doon na koo xam ne mbappat na lool ndaxte nag football fii li nga xam ne ràññee nañ ko lool fii ci réewum Gambie Bovo Soun euh, Papa Gassama doon na ko doonoon na koo xam ne foofu la tàmbalee foofu la feeñee te nag foofu euh, la ko nit ñi ràññee ci nag liggéey bi nga xam ne xaral na ci lool mu ñeel rafet bi nga xam ne euh, ci lay yëngatu naka noonu taarix tamit leneen yi nga xam ne daf nañu ko nettalil mooy booy xeema yoon yi nga xam ne daf na daf na ko AFCON Refri maanaam daal jongante bi nga xam ne dañ ko defaral di jongante fii ci Afrique saw jant boo koy xeema lam demal mim réew muy Gambie pour nag bokk ci ñoo xam ne dinañ doon refri fii ci Afrique saw jant 2012 euh, moom Papa Gassama bokkoon na ci ref yi nga xam ne ñoom nag ñu doon euh, yëngatu ci wàllum euh, jongante yi nga xam ne ñu ngi ko doon nemmeeku fii ci Afrique saw jant 2013 2015 2017 2019 ak bu ci mujj mooy 2021 jongante yi nga xam ne ñu ngi ko doon nemmeeku foofee ca dëkk ba Cameroun naka noonu taarix leneen yi nga xam ne tamit daf ko nettali ci moom Papa Gassama ginnaaw nag FIFA mooy nag kuréel bi nga xam ne ñooy seetu ci lépp loo xam ne aju na aju na ci wàllum tàggat yaram ci àdduna wi ngal 2007 eh, ci la ko FIFA jël oolu ko pour nag ma war a Eh, ci jongante yi nga xam ne ñoo gën a màgg fii ci àdduna wi nga la képp loolu xewoon na ci atum eh, ñaari junne ak eh, juróom-ñaar bu sukkandiku ci loo xam ne taarix dali na dali ñu ko nettalil moom Papa Gassama ci fàttali leneen li nga xam ne tamit jot na koo am ci wàllum taarix ci wàllum football doon na koo xam ne moom lañ jox raaya lu tolloog ci ñetti la yoon mooy refri bu gën a xarañ fii ci Afrique saw jant loolu tamit boobule raaya dal di leen ko tabbu fii ci Afrique saw jant bu ñu ci ni nga xam ne Euh, Modou Lamine Sène jot na ko gestu ci taarix ci moom euh, papa euh, Babacar Gassama naka noonu moom papa Babacar Gassama mi le xamal xamal leen ne ci nag jongante yi nga xam ne ñu ngi ko war a nemmeeku foofee ci diwaanu Qatar mooy nag World bi nga xam ne àdduna wingal képp jamono bi nag ñu ngi ci teg seen xel yi ak i gët ya moom papa Babacar Gassama mi le moo doon référé boo xam ne fii ci Afrique sowu jant jël na wala nag lu tolloog ci ñetti yoon mu ngi dem foofee ci diwaanu World Cup bii nag koy ñetteel mooy wal ko bi nga xam ne ñu ngi ko war a jongante foofee eh, ci diwaanu Qatar naam mim réew muy Gambie ñoom nag eh, bokkuñ ci yooyu la jongante waaye ma ne ne eh, am na doomu ju réew Gambie bi nga xam ne dina fa teewal Gambia yëpp ku mooy Papa Bakary Gassama mi nga xam ne bokk na ci ref yi nga xam ne FIFA Eh, dal di na leen tànn fii ci Afrique saw jant pour nag ñu war a bokk ci jongante mi nga xam ne eh, waris nañ koy war a mën a nemmeeku foofee ci diwaanu xataar eh, loolu des naa tàmbali ndikk ni ci njeextalu novembre wi ñu nekk atum ñaari junne ñaar fukk ak ñaar kon mbokk yi lii leen façon yéene yegge leen ko ci jaar jaari Papa Bakary Gassama mi nga xam ne doon na Eh, koo xam ne falagu Gambie yëkkati yëkkati na ko fii ci Afrique saw jant naka noonu falagu Gambie eh, yëkkati na ko ci àdduna wingal képp ginnaaw nag doon na koo xam ne eh, dinañu teewal foofe ci diwaanu Qatar ci jongante yi nga xam ne ña ngi ko fay nemeeku di ko ñaanal yéen na ko yàlla sàmm yalla wëtt ko ba lépp loo xam ne bëgg na ko ci métier mi yàlla gën a continuer di ko ko may kon jamono TV lii la façon yeneen dafa dafa ko taxaw seetlu ci doomu Gambie bi nga xam ne jamono bi nag fas na lool ci wàllum taarix jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu jaajëfal